ñëw ndax importance bi nga xamante ni moom la moom la moom la compagnie bii am. taw ñu wax ak ko ne. ñuy gendarmerie yi mag. gendarmerie compagnie bu mës a génn. 1982 ba jamono ji may wax ak yow ñun la ñuy woo ñu yedd ko ne yi. waxal leen sëy Touré xam nga ni liif dafa diis. waxal ak booy yi parce que am na booy yoo xamante ni. sans benn grand tour nañ ko liif tour boo xamante ni. waaw yow un mois saa buñ ko yóbbee hôpital ba tekk ci kanamu docteur bi mun ko dama am hémorragie interne sama biir bopp te ba nu xoolee après sa mort ba ñu defee autopsie la ñu gis ni gendarme bi ko dóor lii fi dóoru ko ko woon moom daf ko ko dal intentionnellement. benn bondi leen ko doon dóor. kooku moom kenn waxatul wax. sëy Touré. xam nga ni. Hmm. sunu yaay xaar may ma jaaga daan na wayal yenn wayi ay jàmbaar. loolu mooy léemaay bi nga xamante ni moom la ñuy defal gone yi bu ñuy jëriñu léemaay la. léemaay la leen di defal. ndax yàlla leen yàlla la ba cat. promo bii ngay gis Touré. waaw ñoom ñëpp 17 sur 20 la ñu am. waaw qualifié d'office. ñëpp am moyen. këf qualifié d'office. ba pare les chers compatriotes. ndeysaan Touré wuy ma. je vous aime. wuy ma kaay kaay kaay. vous êtes courageux. kaay kaay kaay. on baal baal baal mais on ne te sëy dama dégg Touré kaay dama nu mu di César Touré dimbali ma bul fi laaj ko tubaab fii gendarmerie la ah nanu ma péré dimbali ma man dama jàng ma dama tubaab bi waxal wala dama ni rendre le César ce qui appartient à César yow de tëj na la ba pare continuer kon nag xaar ñëwal sëy ne leen kaar defal ma teekoo defal ma teekoo oh. ma ah, tuuti ma waane ñi leen kaaro kaaro éco bi ñëwagul de éco bi ñëwagul éco baa ngi nii tax lii du éco du de éco mooy lii def peew peew peew loolu éco man sax benn sandal def ci éco bi dama yaakaar sandal def ci loolu nga xam da naan peew peew peew ñi leen ka xam nga Wally Seck mës na xeex benn grand frère daal di toog ak ni ka ay grand frère bul ma yangal waay tase kin tase kin di la naal ba tey naal ba tey di ba baal di école ba ñëw école ba ñëw ah bare na de bare na de bare na trop bare na trop wàññi leen lii wàññi leen lii école baa ngi mel la fonde école baa ngi mel la fonde ah. école baa ngi mel la fonde dégg dégg man de ñemetuma wax. mais am na keneen ku topp sama ginnaaw di wax keneen ku topp sama ginnaaw di wax keneen ku topp sama ginnaaw di wax. nekk na noppi teeseeku. waa ñun écho bi de un. bi de un. waa ñun dafa am sa dafa am sa boo xamante boo xamante ni. tuuti. waa kii. jëf danoo commencé léemu gone yi waaw te doogay jublu ci yox yi ñu génn ñu doogay jublu ci suñu bopp ay waay sëy ba ma ne un deux trois ñu départ bi nan ko def ci mbëfër ba mu yéeg ñu baaral ko nan ko baaral ndax xale yi danoo réglé bis bi réglé kon li ñuy def war na réglé ku sol blouson bu mu dugg ci yëf yi sama costume na réer na sa néeg ba nu newoon. ci néeg bi nu newoon am na benn gendarme bu ko jël sol ko. ah kay. dañ koy wax. dañ koy wax. am na ko ci sol. kii na nee déedéet. parce que du yow. kon nag bismillah ñu ko lay. ni leen kaa. population bi di la laaj an sa fi ñee bu la gendarme bi arrêté nga taxaw mu ni la ana sa carte grise ak bu façon nekk di expliquer ndax booy yi dañu correct génne ko ta jox leen ko yàlla bëri na sutura dafa am sama benn grand ndeysaan lu mu def ah, Moustapha mën nga rey bi léegi waaw sëy ndax damay dugg ci lu am solo lu garaaw muy li tax ñu indi ma fii tey dan ma fay xaalis bu bare pour ma ñëw fen si hein te yéen ngeen mën a ree man ma ñibbi solennellement dans la discipline. astafurlah. sama bi banaana la way. banaana. bi mu wayee banaana. nga ni. depuis daal di cartonné à Saint-Louis. la illa. xale foo toll banaana la ñuy banaana. way bi nag lii laa ci jàppoon. loo ci jàpp. nanu jàpp lii. bana. loxo yi rek. fi mu yi. dañ leen disqualifié bokkuñu ci loolu. ragal naa ne am na ñuy sàq mi. waa ji banaana. ay boo ko lekkee da ngay suur. waaye banaana. ay boo ko lekkee da ngay suur. di di dar. foo toll xale yi di yooyu banaana. yàlla dogal benn jour. booy gendarme yi génn di ramasse. xam nga star yi ñoom yooyu la bëgg. bu la police tawee naan la ay xàmme woo man maa way kii quoi arma arma ay armancier fii quoi affaire arma yooyu arma Ndiaye karaw gi lépp la policier yi wax yow daal Moustapha Touré waaw sëy baka gendarme yi ne taral a mu ni gendarme bi xàmme ma quoi man maa way banaana waaj ni ko yaa après boo wayee banaana man la mot sama yoon dina sa carte d'identité grand bi naan ko yow xàmme ma waaye ba naan na ay boo ko lekkee da ngay suur waay. waaw waaye dina ko waayal salade de sëy. yéegal coota sëy dinaa la nettali ñaari histoire yu seex ay seex. yow rek laay déglu Touré. Armand je vous remercie. ndeysaan. ay seex yoo xamee ni benn seex bi daa mën a namp lool. ay waay. dem na ba mujj beneen seex bi li seex bi di namp ëpp na ëpp koo xam ni mu zalu. déedéet kay. daa di wut poson daa di diw ci benn wet. loolu assassinat la ak ak ak waaye tey mbaa xale ba génn àdduna. seex bi daa yeewu suba fekk yaay di jooy mu ni yaay ji lan la mu ne ko sa papa gaañ. non xaaral mu ni ko taxawal. ñaari seex nga waxoon de. ñu doon xëccoo ana benn seex ba. beneen seex seex ba daa yaakaaroon moromu seex nàmp ci ween bi nekk ween bay manqué soow papaama mujj a décédé xam nga du ñëw Touré dinaa la wax benn mbir léegi nga daal koy dégg loola la góor du fer góor ba à de cent cinquante ans fekk mi ngi teg ay bëtëm bu ko gisatul sax dana ko làmb ko <laughs> raay raayam ndax góor du fer sëy tere may sa nga ne lan accident bu rëy dafa am yoonu ngaay trois cent soixante sept oto ñoo mbëkkante jour boobu kenn mësul gis loolu loolu garaaw na gendarmerie déployé élément am yëpp ñu couvrir zone boobu nee nga wàññi ñaari oto laa ci mën a wàññi ndax amuñu woon vignette toolu ni kor day bari ñuy moor yi waaw di rangale blessé yi Macky Sall mu baax mi politique nag politique ma na ma dindi nan ma dimbali damay nettali les faits tels qu'ils sont waaw waaw waaw dëgg la Macky Sall di romb ak cortège am affaire bi fan la amee loolu amul woon ca autoroute ba jàll noonu côté Diamniadio accident bi laa la wax de waaw accident bu amul ci côté autoroute te jam ñaajo bi fan lay am man ngaay laa la wax léegi-léegi nga fàtte ko bee bari dégguma woon ngaay defar leen retour Moustapha déggatul lu bari bi accident bi amee trois cent nga ni moon naa wàññi ñaar wàññi nga woon a wàññi ñaar ñoo amul woon vignette bi loolu amee ku baax waaw sëy ñuy ragale moor yi di ragale blessé yi. waaw Macky romb cortège am. waaw mus boobu cortège bu toll noonu kenn mus ko gis ci àdduna. dëgg la. sept mille oto la la escalette lépp topp Macky Sall foo toll dégg pus motaaru gendarme yàgg ca kanam. tey xaj naan ni. waa ja doon dawal gendarme ah, gendarme bi doon dawal moto bi bu ma la waxee lan la doon dawalee moto bi doo ko gëm. lu loxoom. waaw loolu ñoom la dañuy def di daw trois cent soixante sept kilomètres à l'heure xale yu dégg Macky romb gis mu rafet loolu waaw waaye ba mu rombe gis ñuy tëral moori Macky dem la ba Matam ak ngaay na mu sore waaw boobu jëm si yàlla ji Bruno mi ngi dund ak a njaxlaf macha allah Macky ne gar Bruno ni ko la laaj seen ci yoonu ngaay bi birinoo ci bëtam yi ñaaw ya rendre hommage lu ko yàlla yërëm nit ku baax kooku kooku jar sargal ba dee laa tuddee woon l'homme sans mun ko monsieur le président la république diggante yoonu ngaay y'a quelques morts hmm? loolu loolu garaaw maa ngi toog nii ci wetu birinoo jaata waaw présidence xam la moom fa génn wax ju bari kon yow da daa nekk ci couloir yi laa taxawoon di wuyu téléphone di whatsapp conseil des ministres am Macky ni ma tibb disposé lii moom a génne Paris buri noonu ni ma jëriñ man ka naam mun ma man ka da ngay arrêté oto yi mun ma déedéet buri noo noonu la ubbee cortège bi tëb souplesse tëb quatre oto tourné ni lay wan ñekku la président ne na ñëpp wan ñekku oto yi ndekete oto président buy daw nii du tourner déedéet. turé lu garaw la oto président oto président laa lay wax de. wax ma lu muy def. du daw ba yàgg rek def nii. oto yi nit la déglu de. oto président de. waaw. 700 oto. waaw dañuy daw ba yàgg rek. bi ñu doon li tourné leen nit ñi. noonu la loolu kenn mësu ko. ama seeteree la. cinq pour xam ci fi ñu taxawoon. cinq pël yu fekk woon loolu. waaw dañu xam. oto président dafa am avanceur yoo xam ne kenn oto amu ko. Macky bi mu yegsee. ah. wàcc accident bi métti. blessé yaa ngay jooyoo. eh, eh Macky naan leen massa bëggul Sénégalais bu am lu ko metti ah. Macky jàpp leen uuf leen. tam tam leen. blessé ya am na ci koo xam ne Macky moo génne compresse ci poosam. ndeke Macky Sall fu muy dox di dem. poste bi lépp daanaka pharmacie pharmacie buy dox la rek. waaw day fajaat. mag génn ci poosam compresse lépp loo xam chirurgien da koy soxla. waaw ci cabine bi nekkate benn benn boîte bu ndaw la ko Macky Sall def am na ñu bari ñoo xam Macky leen faj. moor yi mu toog ubbi kaamil kenn ku si nekk mu jàngal la ci jour boobu dix kaamil mais kan ci noonu la bare ci alxuraan. Mm-hmm. wala daal yi na amin ñu daal di defar ba mu jekk suul wala daal yi na amin ñu daal di su ba ñëpp mat waaw mu turna waaw ñooñu ni kaa matun dara lu nu metti monsieur le président de la république tu es un bon patriote ah Macky ni leen seen jàmm ma gën a lu ma am ah daal di turna xool moor yi waaw jooyu Macky yàlla na la ci yàlla musal waaw jooy day diis nag. day jooy Marème Faye di jooy ministre yi di jooy. conseil ministre di jooy. dégg nga chef de quartier yi ànd ak di jooy. da gis sa préfet bu woote daal ni ah. woo chef de quartier yi nan la ko ta jooy. ànd loo la jooy. may la jox quinze millions. Ah. yi. dinaa la jox kenn ku si nekk cinq cent mille benn belees ni jar xit jëm ca moor ya takk ndig ni ko wàññi noonu ba pare bu ñu yàqal billaay yow loolu sëy dama lay nettali affaire bu ndaw man dama ñëw nekk ak sama jabar Maada léegi nag ma dem ci duus bi di sangu ma jël sa téléphone teg ko ci comptoir lu bi ci kaw te comptoir bi mooy fi ñuy teg saabu bi may sangu naka laa jël saabu bi ba raggu sëy yow rek lay déglu Touré tàmbali saabu baa ngi dans mes yeux près de ma nez saabu lépp saabu si téléphone bi dafa am benn arrangement ma daal di teg sama loxo di jéem a yóotu téléphone bi pour xool sonnerie bi téléphone bi jóge ci kaw ni putux ci ndox mi yow ñàkk nga loolu yow non loolu ñàkk nga a des solutions ma génn ni sama téléphone yàqu na xale yi ni ma papa ne pleure pas ne perturbe pas ma ne pourquoi ñu ne ma amener le téléphone dans la sac de riz musuma xam ne saaku ceeb day réparer téléphone da koy ngacc da koy guux oh. jël téléphone bi dugal ko ci saaku ceeb bi maada di togg ceebu jën tibb ceeb bi boole ko téléphone bi sóor ko tay ko yàq ko rëndaale ko dëkk nag ca kaw jën ya moom xamul ni téléphone bi ndeysaan dafa xaw a mm-hmm. nduróog jën boobu ñuy wax yaaboo yi noonu laa jëlee téléphone bi rek ni ko waraax rek mu jàll mu kale sama fii ma ni ah boobu son sonn naa ñu évacué ma bi nu ma évacué aha ñu yóbbu ma hôpital principal kon yow sunu si loolu la entré direct déedéet maa nga nekkoon ca toilette ya yow looy def ci toilette ya waaye docteur bi moo ma bindal ordonnance ni ma banana rek ngay lekk deux bananes matin deux bananes soir deux bananes dans la nuit sëy tanima ne sors pas dans la toilette reste tranquille ma daal di toog si toilette damay jékki saay ba sax yàgg rek ni pëf war sa wat war sa men war sa wat xale jigéen yi génn caj namu naa la ci loo leen nekk fël xalaat bàyyi nañ ci jàmm oh déggal lii maa ngi ci biir groupe bi dem ba mu neex tëf sëy ma toogaat ba waaw sëy portable ba nga wan noonu biñ la yóbbu la ci toilette yi ay application ñoo doon jëlaat whatsapp ba njëkk ni pouf sonnoon nga xam nga xale yi dañuy dañuy sonnoon naa loolu sëy sëy ma toogaat ba sa yàgg ni docteur bi ah wa sa waat si na mun ma continuer de manger le le banane et et beaucoup d'eau la toilette sëy ma jékki saay ba sa yàgg rek oh pouf sëy xam nga lan moo wàcc lu wàcc sinaf sab sinaf sab mel sinaf wàcc ma toogaat ba sa yàgg. Touré Touré maa téléchargé woon application wu télé waaye boo téléchargé application bi naa lool sëy. ay ba toogaat ba sa yàgg. xaaj xaaj. banaana bi mu mujj a lekk nag Côte d'Ivoire la jóge. waaw ah, yow looloo looloo may sens. ma toog ba sa yàgg rek mu ne waat pëf whatsapp nag wàcc na estati wàcc na waaye facebook moo ma sonal. oh. j'aime yi. partage commentaire yi. di man dami. c'est son honneur. ah waay Touré sama jabar ji nga xam ne nag. ndeysaan mooy inti. oh. inti de ñëw na ci man naan man nijaay. kii moom jëkkër jabar ji kii daa gaañu. lu xew. ah moom nee woon nañ ko dañ ko dëjël rëy bi. ma ko yóbbu ko grand théâtre. ah waaw bu bëgg lu rëy moom dangay dem grand théâtre. te waaye Touré xam nga ni koñ ba amoon na ay dam waaw Aïda yow xam nga Aïda bu baax Aïda nag mineur la neuf ans la am dama bëgg ngeen jàpp li may wax te ngeen déglu ko waaw Aïda ndax lii xel a koy déglu Aïda bi mu amee juróom-ñeenti at waaw la yàlla xotte ay bëtam Aïda bu courant coupé dañ koy solol lu dul benn silib dëgg la tekk ci diggu kon bi dëgg la kon ba di tàkk di leer ndax Aïda yaram buy nes nes da ko teel a am déggal loolu neuf ans am Aïda kon bu amee kuy sibiru Aïda la ñuy woo bu ko reewee kooku day wér waaye Aïda neuf am leen nay problème mu Aïda mooy lan Moustapha Aïda nee na du sol slip hmm? Aïda yaay ji day wax ba sonn ayda del sol silib ayda del sol silib waay ayda ne allah ak nu dee du sol silib waxa ne du fekke coonal borom de li may nettal dafa ma ñor dafa diis li wax a diis ndax lu ma fekk la mu metti ma dëgg la ayda di yónni ka café jox ko fukki dërëm ni ko jëndal café pour sa papa mais ayda huit heures ci suba la génn deux jours après la ayda doo ngay dellu si kër gi la illah yaay di jàpp Ayda naan ko foon ne kon tey laa rey Ayda ni ko yaay dama génnoon waa cinquantième promo ni ma naa leen seen bal yaay di ni ko Ayda mbaa nga silip mun ko ii laa ilaaha illallaah yow yaay may jigéen xam sama bopp xam ki ma doon man yaay gis sama sër da nga yaakaar noonu la yombee avant may ci kaw garab bi laa ko simmi denc ko. waaw Aïda kon lu mu. sa yaa di jàpp Aïda di dóor ba sartu dënnu xale bi daanu xale boobu génn kër ga dem toog ca kaw garab ga ba tey Aïda solagul silib. Ousmane gis nga. am benn góor gu mag ci koñ bi. waaw doon kurusam. taa astafurlah astafurlah. paa bi toog na quatre heures de temps di xool Aïda daal ci poosam quatre cent cinquante mille ni ko am demal jigéen seen silib xale day sol silib ndax Aïda neuf ans nga am xale nga waaye Aïda lii nga uuf di mel na gaynde gu ŋaaŋ wala ñaari oto yu mbëkkante wala lii ñaari xàll yu toj Aïda yow lii lan la Aïda dee lii jigéen ci duwaale Aïda danga fa di ji Aida doon naa fi uuf lii Aida man lay ñaanal yàlla la yàlla sàmm waaye Aida li nga yor nii lan la xanaa ay oto yu accident la quatre cent cinquante mille yooyu la Aida jël dugg ca biir kër ga. yaa ji ne ko tey laa lay rey mu tàllal ko quatre cent cinquante mille. xam nga maire nag loo coow coow coow boo tàllee xaalis dañ ñuy noppi. ñuy noppi dañuy calme. maire bi daal di récupéré quatre cent cinquante mille ni ko foo ko jëlee mu ne ko yaay dama doon dama toog ca kaw garab ga benn paaroom ma jox ma quatre cent cinquante mille nee naa jënd slip yaay ni ko jàllal ci biir ni ko ayda jàllal ci biir dinaa la jëndal slip maire bi toog réfléchir ni moom mi ngi juddu 1962 ayda mii am 9 kon moom chaque neuf ans ne war na am quatre cent cinquante mille si mi bosam dem yëg ca kaw garab ga toog. ay waay ay waay. loolu na ba toog na fa quatre jours di xaar paa bi romb. paa day romb rek yóoxu taxaw na fa quatre jours. paa yoo xamante ni ngi toog di xool maire bi. jékki-jékki sax rek paa bi lamb poos bi. génn ci juróomi ni ko jëndal lan set. tawatuñ bare na de. bare na de bare na trop bare na trop